Jaa voilà kon man maa ngi leen di nuyu maa ngi tudd du Ndaw ja élève la en médecine étudiant à l'université Assane Seck de Ziguinchor te actuellement man may coordonnateur organisation bi ñu tubbee institut du changement social ICS voilà camp de vacances bi li ko waral mooy dañoo gis ne xale yi vacances su jotee du ñu am lu ñu def te comme que institut bi dafay prôné lu ñu naan émergence te Nelson Mandela danaan wax ku bëgg a sa réew développé faw nga daat koy basé sur l'éducation moo tax ñu jël xale yi daat leen ni bëgg a éduquer indi ay enseignants ak ay moniteurs yoo xam ne dañuy jàppale ci camp de vacances bi nga xam ne dure bi un mois la xale yi ñi nga xam ne ñoom la ñu ciblé moom mooy CI ba cm mais aussi jël nañ si xale yi nga xam ne ñoo leen gën a mag ñi nga xam ne ñoo formé collège bi muy CI ba troisième ñoom ñoo ñëw si camp de vacance bi voilà kon cas de vacances bi liñ si def wax naa leen ko lundi la tàmba jeudi la tàmbali premier septembre di jeex 30 septembre te le samedi incha allah le premier am na benn cérémonie boo xam ne moo koy clôturer te xale yi nga xam ne ñoom la ñu gën a ràññee si seen xarañ ak seen discipline ak seen bëgg si camp de vacances bi dinañ leen primer de même que aussi ay diplôme dinañ ko jox ñi nga xam ne ñoo ñëw jàppale ñu volontairement si camp de bi xale yi nag fii du lundi la dinañ def de 8 heures à 11 heures et demie ay enseignants pédagogiques avec des enseignants et des instituteurs et de midi à 13h ay moniteurs yoo xam ne ay éducateurs lañu ak ay moniteurs diplômés ñoo ñëw defal xale yi ay classes de chant ay classes de danse ak ay ATM yoo xam ne ay activités techniques manuelles la. voilà loolu perspective boo xam ne institut bi bëgg na si lancer wu mooy xale yi nga xam ne ñoom ñoo bénéficier wu si camp de vacance bi ñu mën leen a topp camp de vacances bi bis bu jeexee te ñu dugg seen année scolaire enseignants yi nga xam ne ñoo fi nekk ak moniteurs yi ñu xale yi mën a am benn suivi si seen cursus scolaire ba liñ fi jàng dinañ ko mën a di appliquer si seen i jàng mën ko appliquer aussi déwén suñ ñëwaatee si camp de vacances bi voilà kon donc camp de vacances bi ñu ngi koy jëg a def te bilan bi nga xam ne ñu ngi ko siy tiré bilan bu satisfaisance la parce que gis nañ ni pa population randu leen ak parent randu leen ni jàpp nañ si indi ñu xale yi parce que fii am nañ fi plus de cent enfants am nañ fi xale yu baree bari yi nga xam ne ñu ngi bénéficier wu si camp de vacances bi te perspective yi ñuy yi ñuy définir mooy camp de vacances bi di mën a am chaque année chaque année vacances su jotee xale yi mën a bénéficier wu camp de bi pour ñu am benn espace boo xam ne dañ fiy fowee mais aussi dañ fiy jàng sama kàddu gu mucc mooy kàddu googu nga xam ne nag moom laa koy jox ñi ma koy jëlal mooy autorité locale yi ak mairie bi parce que la ma leen waxoon rek éducation moom mairie moo ko war a jàppale mairie moo ko war a soutenir kon di si woo délégation politique yëpp ñoom directeur général de la poste ñoom député yi ñoom maire yi ñu ñëw jàppale xale yi ñu xam ne xale yi seen doom lañu ak seen i sët te xale yi mën nañ fi ay président mën nañ fi génn ay ministre mën nañ fi génn kon daal li ñu leen di wax moo ñu ñëw jàppale waa institut du changement social merci